daan ay ndaanaan ay ndaanaan daan ko boobu ak gisuñu ko teguñu ko te nag ñu ba fekk ko fii si café gi ci Baye Fall yi te mu nuyoo fils de Sam Sam ziar naa la. waa Iri fay naa la grand bañ sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur di sant fi ma fekk muy Sam Sam di baal ñëpp aax si weeru koor gi di baal ñëpp aax di ñaan Sénégal yàlla na fi jaamu yàgg sant Sam Sam 1 2 ba 3 di sant sama dëkk Casamance di sant waa Mampalaaw di sant waa Bignona. di sant sama président Papis ak waa écurie bi yëpp bi yëpp maa ngi leen sant bu baax a baax di sant suma waa écurie fii nii euh, écurie Jalle Birama Thior du sant suñ papa di la ñaan yàlla na ko borom bi defal lu wér mee ko gudd fan di ñaanal suñ ko su jàmm di ñëpp jàmm ak weeru koor gu nekk maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Fils de Sam Sam ñu gëjoon la gis trop fan nga nekkoon. waaw maa woon sama ruq rek ndax dama di ndaw quoi. nekkoon si dynamique bu am solo am ay dog-dog yu ma téye ma ànd seeg samay mbokk génn dem defaru juwaat instant ñibbi si naa si jàmm. ñibbi si nga si jàmm waaw. a xam ñii si daan bëgg a xam Fils de Sam Sam ñaata combat la def. waaw Fils de Sam def na six combats def quatre victoires deux défaites. balaa ñu victoire deux défaites kenn kan la daan. waaw Petit ak Mama ñoom moo ma daan. c'est-à-dire dafa ñaar ñi la daan ñu ngi ci làmb ba tey. waaw ñoo ngi si làmb di lëmbe ba tey ñoom ñoo bokk lébi quoi affaire nag jaaxal ma trop. mu amoon combat boo xam ne yàgg bëre nga ko mu amoon coow trop trop diggante ak Omre. waaw coow lu bëri woon na trop maa Omre moom làmb jooju góob ma dinaa bëriwaat làmb ju mel noonu noonu. waaw lu nga wax loolu. ndax dama jël Omre ñëpp na ma moo mën Omre moo la daa ko moo la ëpp lépp ma génn si nag dem Gàmbi ànd ak samay mbokk liggéey si ba ma liggéey ñibbi si samay mbokk na ma noonu lu ñu gisoon si yow gisuñu ko si yow mu gën maa yokk jom ma gën a rayaat sama bopp fii nii moo tax laamu joo nekk na laamu joo xam ne bokk na sama carrière laamu joo xam ne ba may dee ko fàtte ndax métti woon na trop ba bisul ba jouru làmb ji ba benn suba la làmb ji dafa métti sama côté mais yàlla mu dara tawul ñu ñaan ko mu meññ ñoo ngi koy sante yàlla bu baax a baax. mel ni sa làmb jooju laa ne fii de samedi mi ñu daan gis ak mi ngi gis tey bokkul jël si woon naa la jëli ko moom. waaw waaw waaw jël si woon nga ma. ñu waxtaan si nag lu am solo waaw yàlla def nag ñu dem si ak jàmm yàlla may ma dam si kaw Omre coolu nag bëri woon na trop làmb jooju wax ji bëri woon na trop gauche ak droite mais man moom góor laa quoi te góor dëgg laa te góor dëgg xaar ko si moo tax ba xare boobu jotee ma wane sama bopp. dafa mel ni nag si diggante ak Mama Lamine moo coow nag ñëpp dañ ne woon waroo ko woon jël moo la mën moo la ëpp doole sa waree na ko. waaw maa ngi Mama waaw waaw làmb jooju tamit nekkoon na làmb joo xam ne tamit bëggoon naa ko quoi sama carrière ndax dama tegle trois combats dama dama tegle trois combats trois victoire yaa ngi dégg ñu jox ma maam Maama Lamine gars yi na non Maama Lamine waroo a jël dafa teel moo la gën a diis moo la ëpp jàppale. ma liggéey si liggéey si nag nu ma si war a liggéey komba boobu liggéey naa si liggéey boo xam ne bu ma simee ko stade bi am na ñoo xam ne sax xàmmeewuñ ma ndax lu ma si liggéey mais xam nga bisu bisu bisu ñaax du bisu am. waaw yàlla yàlla mu dara tawul. moo ma xañ ko amee ko maa ngi koy sant yàlla bu baax a baax a baax ndax mbër la champion la. kurul man Mama Lamine mun na laa daan ndax mbër kaamil la mbër dëgg la moo bañ fa jógee ñu defar waa tamit waa toog quoi ndax champion la mbër la quoi. yéen ñaar ñëpp ki benn mbër mi leen daan. waaw ñoo bokkuñu daan waaw ñoo bokkuñu daan waaw ndax Mama Lamine daf ma daan ba mu ba mu jugee si man waa si la ma loo daan si la leen boole. waaw bañ leen boole loo daan ko ñun ñoo. mooy seen ñu des ñaar mooy suñu roi des arènes pour l'instant quoi. Ah, xam nga nit ki di nga daan sax. mu mën la man Pod Lo mosuma yaakaar sama carrière dina ma daan. waaye waaw waaye daan na ma. non mënu ma. barke sëñ Saloum Ba. moo la mën aller retour ak man góor mënu ma. góor mun na la ndax Pod Lo moo la mën moom laa la nee naa la mbër dina la daan te du la mën. barke sëñ Bamba maa ma la moom du ma wax moom su su moom lu bëri quoi ndax moom su ma waay la quoi mais Pod Lo moom amel na ma bor boo xam ne fu mu fu mënti nekk sa àdduna naa ko fekk fay barke sëñ Saliou Mbacke. paree ko si pare si moom billaa wallaahi taalaa përloo fu mu nekk si àdduna laa la wax su baawoon bëre sax su ma dajeeg moom lu Ama Baldé waxoon moo la laa ko mu yor beeka man nangu <laughs> benn beeka bi <laughs> rek moom. <laughs> kon boobu métti na nag. non boo dama métti ndax bor boobu tamit def na ma loo xam ne tamit waaw. waaw jàngat naa si lu bëri bëri bëri bëri bëri ndax làmb joo dafa nekk làmb joo xam ne lu si lax si woon moo bëri te làmb qualification la. teg jeexal la woon xama tey waaw làmb jooju noonu sama waajur bu jigéen daf ma doon tere làmb mais làmb jooju da say tegg natam def ko si man lu ma amoon samay mbokk lu ñu am samay am ni jàmm dëkkandoo lu ñu amoon lépp ñu def ko si ñu tegoon si jeexal mu doon làmb joo xam ne buntu loon quoi mais xama tamit suñ borom doo xëccoog moom waaw daa def lu gën dañ koy sant yàlla bu baax a baax laa jooju nag jàngal na ma lu bëree bëree bëri bëri sama carrière waaw tax na tamit lu tax ma gàddaay woon dam defaru jàll làmb jooju tamit si la bokk ndax ba ma si jógee métti woon na trop mais instant yii dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax comme que ñu bis nañ si jàmm ñoo ngi suñu sant si jàmm rek ñu ngi sant bu baax a baax a baax. waaye fi ñu toll nii fi ñu toll nii dafa mel ni damaa dégg nga ne sa 16 da nga kaa teg parcelle. waaw 16 bi moom jógeegul parcelle wax dëgg yàlla nag ndax. ñaar ko ma est-ce que bëre moo fa ñaari combat xaw ma. voilà pour loolu daa mel ni kii kii fa la dëkk waaw soo premier combat. Kaita Kara mu waaw diggante golf ak parcelle la rek. waaw waaw moom fa la moom fa ndax moom laa bëre rek jël Petit Lo. Mhm. mais am na keneen koo xam ne soxla naa ko biir ku nit di di daw. ku nekk parcelle. waaw ndax ama am na si yoo xam ne soo si jógee hmm. da ngay bëgg lu tàng man su ma bëggoon lu nooy heure am naa combat bi yàgg mais dama bëgg loo xam ne dañ naan tey fi sam-sam tey mu deewati. foofu ñu fa nekk am sa nga sa sa coow topp leen am na ñu am combat te ay Talfa am na combat am nañ combat. mais Mbacké Faye amul te dégg naa mënoo na ñoo ñu bëre. non est ce que tamit gars yi est ce que gars yi yi bala nga Mbacké Faye. barki Seydina Mohamed ak weeru koor amul dara loo xam ne dama koy toog di ko xalaat su ma wala ma koy calculer su ma. Mbacké Faye nii nii rek dafa lekk avance adversaire di ko na ñoo ñu bëre amul am adversaire man am adversaire na ñoo ñu bëre làmb boole nañu. lan la lan moo tax nga nga bàyyi fi ñëpp ne Mbacké Faye non Mbacké Faye damaa gis qualité qualité yoo xam ne man ak moom suñ bëree amateurs yi bëgg nañ ko subateer yi bëgg nañ ko ndax mbër la mbër la day joxe te man mbër laa damay joxe te man góor du ma yab te Mbacké dama gis moom bëre boo xam ne maa moom suñ jëflantee danañ xam ne du gàtt du ñaar dërëm. xam nga ne Mbacké Faye du ñeex a ñëpp benn booy. waaw yow man calculé wu ko sax. Iri barki Serigne Saliou Mbacké Mbacké Faye du fayat. billaay wallaay maa ko fay du dara lu leer laa la su ni nga waxee dafa mel ni mer bi nga jëlee si Petit Lo nga bëgg a sipp Mbacké Faye moom laa si moom nag laax bugg bëgg a fayoo ba géemaa la ñeneen ñu si bokkul. ah baal ba génn si. non ma jàngal lu bari dama see jógee tamit jàng si lu bari te balaa ñu xam ne fi sa sam-sam Petit Lo jàngal na ko lu bari ñu jox ma Mbacké Faye Ousseynou Laye dégg comme Mbacké fay dañ ko wutal adversaire mu të moo ko rëm bi yàqu na fi ñu toll nii boobu ba tey amul adversaire am na nag ku défier ku ko défier du samay wax nag waxam la nee na moom moo mën moo ëpp doole du samay wax waxam la loo si mën a xam daal ki muy tëkku moom du ñeexu ñebe kenn ay Mbacké Faye la mën si gauche droite. <laughs> yow est-ce que xam nga man kenn dóoraguma ba ma naaj. kenn da lay dóor ba ngeen stade bi. kenn yóbbaguma arro. da lay yóbbu arro. kenn musuma néewil. kenn mus kenn musumaa dóor ba ñaan ko jàpp ko moo ngi rot wala rotul te man maa ngi Mbaaka Faye loolu laa si namm man maa namm loxo gauche droite Mbaaka Faye di joxe may joxe muy joxe may joxe muy joxe may joxe ba mu sonn ma jàpp ko daan ko. yow nga sampu jàgg xeex ak Mbaaka Faye. barki Serigne Bamba jour boobu la ñuy xam ne man mun naa dóor wala mënuma dóor xam nga dañ man daan rek laa mën. xeex mënuma si dara mais sama combat ak Mbaaka Faye la xam kan mooy Fils de Sam Sam si xeex. idi barki sëñ Saliou mbaake man du ma wax di waxaat lu ma koy yóbbante mooy moom mu jël sama avance ñu bëre man ak moom comme que mënul am adversaire man taxaw naa pour moom buñ ma fay dara. Ousseynou Laye dégg Ousseynou Laye bul ma fay fii ki dërëm boola maa ngi baaxee fay bul ma jox dara loo indi si boloog tige ma jaay ko ma bëre ak moom. Ousseynou Laye loolu moom dégg nga ko nee loo indi si boloogu tige mu jaay ko te bul ko fay dërëm sa yow boobu ba léegi yaa ngi utal Mbacké Faye adversaire ñi fi jaar ñëpp gis nañ ni mu demee nanguwuñ ko te kii pare na pour jël ko sa nag nee na waa parcelle dañ ko wax sa waxa waaw loolu sama wax la waa passé dañ ma amal bor te dañ ma koy fay mu leen neex di leen naqari dañ ma koy fay te mbaa fay fu ko mënut fekk naa ko taxal ay pot de day ñëw ñu bë day ñëw ñu bëre par force day ñëw ñu koy moom naa ko taxal pot yoo xam ne ba keroog muy dee du ko fàtte maa la ko wax barki sëñ Bamba Khalil dama yaakaar ne kii daa jóge côté Koutal ñëw yow mi nga xam ne nga jóge côté Koutal ñëw non it dañoo war a bëre waxtaan wax dëgg si la bokk mais mbaa ko dañoo war a bëre Iri man Iri man dama war a bëre Iri man dama war a bëre man daam ñu ma yaakaar Iri man damay génnee ful promoteur lu ñu bëgg man ma koy def ku wedd nga seetaan sama premier combat ba sama dernier combat man damay mobiliser damay génnee mbooloo damay jaay bologi ticket kon lan mooy problème bi damay dox sax xale ndaw yi tout tàng dañ may laaj kañ ngay bëre mais dafa métti quoi ma doon ndaw yaakaar si làmb am ñu ma yaakaar ma fas yéene si tere samay waajur kon lan mooy problème bi dafa jot dafa jot ma bëre parce que sëñ Salim Ba dafa jot ma bëre toogaa bi yàgg na trop instant moon na at ak 3 mois mënumaa tax ngeen bëre si àll bi rek laay taxantu te man a làmb laa yaakaar na gars yi ñoo ñu bëre. lan mooy problème mais ñoo ngi sant yàlla ñoo ngi sant. non ñoo ngi siy sant yàlla. non ñoo ngi siy ñoo ngi sant yàlla àll moom ñoo ngi siy sant yàlla bu baax a ren ren am naa ñaari final. waaw ren moom amagum naa non non non loolu du dara ñaari finale du dara. ndax dara ndax ndax ginoon naa neex noonu daaw daaw neex Petit loo ba ma daane jël naa ñett sept final. waaw Petit Lo ba ma daane daaw jël naa sept final jël naa ñaari nag lu si des ay wecceet la. barke yàlla. waaye ñaari wecceet yi nga am ren moo ëpp nga sept sept final daaw. non non moom ren moom dañuy sant yàlla ndax jàmm moom jàmm burul may boppam lu la yàlla may da nga koy sante dañuy sant yàlla bu baax a baax ndax amaana. luñ bëgg a def ñoo ngi koy defal suñu bopp waaw ndax jàmbaar doon góor moo tax ñuy génn di ñafe ji te nu may waxee yow nii koor gi moo fi baaxoon bul woon koor gi heure maa ngi si àll bi man làmb laa gëm làmb laa yaakaar aw ma xëy aw ma gont làmb mooy sama xëy entraînement mooy sama gont kon tey fu ma mënti dégg làmb rek damay jël sama sër dem sama man sër bu may contacté mooy nekk suma saag moom laay demee tournoi sër bu may contacté barke sëñ Bamba kon xam ne kooku noonu bëgg na làmb quoi. na gars yi génn ñu bëre na gars yi ñu bëre man loolu rek laa leen yóbbu na coow li coow dem na ñëw na Mbacke Faye suma ma bërewul Mbacke Faye du ma bëre damay bàyyi. waaw Mbacke Faye dégg nga loolu. Mbacke Faye su ma bërewul la yow damay maa la ko wax. Mbacke Faye su ma bërewul moom damay tekk sama ngemb lakk sama licence. ndax te damay ñëw ba arène nationale. ma laqee ko foofu noonu ndax foofu laa ko amee sama licence. di di bëgg a bëri Mbacke Faye Mbacke Faye kase Mbacke Faye ourin maa la ko wax. fii sax ñëw taxaw tuuti nag seetlu ikiri jali Birama Coor xale yi fa nekkoon bari na ba ñu ngi fa sax ay Baba Jaxal Cheikh baari ay Boy waaye fi ñu toll nii jali Birama Coor cooli bari na fa lan la. waaw Iri moom soo ma si laajee dama si sawar a tontu ndax dama lay fàttaliku si ginnaaw tuuti nga kii man Cheikh Bari Baba Jaxal Tumaane Papanik Xaysara Tafa Soose. ñoo doon bokk lal bi ñuy yeewoo si àll bi dañ doon dégg dañ doon dégg tournoi ku nekk woo moromam ñu def benn bloc jël oto dem ba Diofior ñooy bokk lal bi ñuy yeewoo ñooy bokk lu ñuy lekk ñooy bokk lu ñuy naan te loolu amatul gis nga àdduna. moom laa leen ni moo tax ma ne gis nga àdduna yàlla mooy fal mooy fool suñ borom comme fi teg rek dañ koy nangu ndax maa ngi fàttaliku euh, tournoi bi mooy njëkk a jël joof yor baaba moo ma paasal. baaba jaxal moo ma paasal moo ma paasal 1500. boobu yor moon dara dama paasal ba pare di ma xas naa moon nga ne yow làmb rek nga yaakaar te yaa ngi ni bëgg a dem tournoi munoo kaa noo munoo sa am paas amal jom nga dem liggéey ma xam ne kii bëgg na ma quoi ndax ku la bëgg rek moo la mën a wax loolu. yàlla def ñu envoyé ma jamonoy wari la woon ñu envoyé ma 2000 2000 yooyu ma ak moom ñoo si bindu yàlla def ma jël tournoi yi. ñun ñun ñu àndoon ñëpp ma séddale leen xaalis bëriwul de mais dama leen a séddale ñoom ñëpp ba pare paasal leen ñun ñibbisiwaat loolu dafa rafet te loolu dafa war a dekkuwaat affaire du dara xam lan moo ñu sonal niveau arrivage yi. waaw xam nga su ma lu am si am gan waaw niveau arrivage yi ama tay ama tay tey man suñ ma fekkee may ànd ak seex yaa may dégg tey booy bi su ñëwee. dafa war a yokk seex lu tax muy ànd ak man mais warul wàññi seex lu tax muy ànd ak man yaa may dégg bu baax léegi man su ma nooyee bopp su ma nooyee bopp dëgg-dëgg man may bàyyi seex ngir kee lu ma indil te yàlla xam na ni seex lu ma mun a amal kee mënu ma xaa amal kee benn bës bi lay ut si man su ko amee si man dem na bàyyi ma léegi seex mu nga xam ne moom laa nekkal ay ati at lu ndaw loolu ñëw yàqoo xoolal loolu noonu léegi seex su toogee keneen expliqué lu mu jot man kooku su naroon ñëw du ñëw xamalum la ndax loolu nag moo ñu sonal biir sam mais ñun bëri suñ biir amuñu benn problème. ah Baari bu mag. Cheikh Baari bu mag mooy fii démb rek ñoo démb rek ñoo toog cant mbëggu faale. Cheikh Baari bu mag def na si defaram. Cheikh Baari bu waa waaw no kooku moom jàmbaar la Baari an jàmbaar la góor dëgg la dañ koy ñaanal jàmm fu mu mën di nekk kooku góor la barki Seydina Mohamed kooku du xool fu ñaaw mu defa wax lu ñaaw day xool fu ñaaw mu defa lu rafet moo tax jàmbaar la quoi ku mel ni Baari ak ñeneen ñeneen su leen amoon biir samsam barki sëñ Touba Mbacke doo dégg benn problème mais dafa am mag yoo xam ne ñoom ñoo ñuy jaxase suñu biir mais ñun bëri pour moi la ñun bëri moom amuñu benn problème te soo ñu fekkee di nga xam ne ñii amuñu benn problème mais niveau arrivage daal lu mu la wax niveau arrivage ñoo ñu sonal. te dafa war a jeex. baaba waaw. ndax waaw non combat baaba contact na mais combat baaba bañ ne suba la làmb laa ñëw dama demoon compétir ji quoi dama demoon compétir ji bañ ne la làmb ji si laa ñëw quoi moo tax yenn yenn entraînement yi fekkee ma ko quoi. léegi uh-huh. fi ñu toll li ñuy jour rek lu dugg si nag li xaju si cin rek lu ko jël si cin coo topp la fi ñu toll nii lan ngay tàggatoo ak lan ngay yóbbante waaw lu may tàggatoo rek mooy di santaat di gërëmaat ak lu kafe gi maa ngi leen sant bu baax a baax Moussa moo ko dirigé ak mafia bu ndaw bi cant gi la 30 la samedi bii di ñëw di si woo di si woo Baye yëpp ak Yaay Fall yëpp fu waay munti nekk rek man Fils de Sam Sam maa ngi lay woo si cant gi la 30 la samedi la ñu ñëw neexal yëngal di santaat rek sama dëkk muy Casamance ndax ñooñu dañ maa jàppale bu baax a baax Idi waaw dañ see jàpp baax sûrement pabis sama président Papis moom aw ma fayam ñam xaajaay maa ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax ñam Moussa hmm, sama booy ndaw ñam Saakees ñam booy séeréer ñam yaa saaxo ah ak yeneen gars yi équipe ba équipe séeréer bi daal maa ngi sant ñëpp di sant bi ñoo ne équipe Baay bi ñam laas maa ngi sant ñëpp bi ñoo ne cat ba cat sama mafia bi ritirata bi maa leen sant waa Bikit Bala ah ñoom Issa ñoom Bébé ñooñu maa ngi leen sant bu baax a baax ndax dañ may jàppale tey soo fekkoon Casamance danga naan ma lu nga am Casamance amoo ko amoo ko Ndakaaru ndax te fii laa juddoo fii laa yoroo foo may xeloo gone yëpp ay bàyyi seen lépp ñëw teewal ma du sama du sama mën-mën lu mu leen wan la quoi moo damay sant yàlla bu baax di sant sam ba trois jàmm gën Sika Mbaaw ah, Buun Kër Massar benn baraak di sant ñëpp. di leen gërëm di santal waa di sant nag waa jeel bi maa ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax ah ku su mel Mbër seek ñoom Long ñoom Ibou Ndaw ah, ñoom Amasi maa ngi leen sant bu baax a baax ndax damay déggante ak ñoom métti na trop mais nattu la rek suñ borom moo leen ko teg yàgg-yàgg danañ koy tegg ñu delluwaat suñu nekkaat su waar bi quoi di sant ñoom Issa Bafa sama grand yi waa yebul maa ngi sant ñoom Issa bu baax ñoom nopp maa ngi leen sant bu baax ñoom Malick Sène ñoom Mbër ah ku su mel ne ñoom Omar Omar Mega Ibulaay maa sant ñëpp di sant Mahmoud bu baax a baax ah waa axlu kafe ga feenee maa ngi leen sant bu baax a baax di sant tur tànk yi di sant suma meeru koñ yi di santaat suma yaay di santaat suma yaay di santaat suma yaay ndax jigéen ju mën góor la ko waa waaw waaw di santaat suma yaay bu baax a baax suma mag bàyyi siri nag iri ñibbi si na quoi too kooku day jënd ay bolok du waxuma la bolok de ay bolok lay jënd maa ngi koy sant nag ba mu ba mu ba tey waaw gis naa sama bopp quoi instant nag di ñaan borom bi ak weeru koor gi ñu nekk soo leen ñibbee balaa ngeen yéeg fi ngeen jëm sama combat ak Mbaaka Faye taxaw moom rek laay xaar bu ñëwlee bëréew ma maa ngi sant yàlla bu baax a baax di julli si yonent bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg Sénégal yàlla na fi jàmm yàlla jox réew mi nag ñu xam ne kooku la mais yàlla na jàmm am Sénégal maa ngi lay sant bu baax a baax di sant sa caméraman yàlla na doon ay télé jàmm si yow xalil forever loo dund doyul cent san sans ordonnance jàmm si ak waa café gi xalil mu ngi noonu di bëgg waat ñëpp nag di ziaraat ñëpp nag joxaat ñëpp seen wàccuwaay di wax tout droit lay doon kutaal kawil kawi caan lat menge turum maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax di leen ziar om rek sama cumukaay dama kaa faatu woon maa ngay sant baax ak Amady Naar maa ngay sant baax waa Seras ñëpp ñam Cheikh Ba Fall ñam Xaarim Sall ñam Cheikh Azar Cheikh Ba guddi maam Seera Faal naka jàmbaar yëpp waaj maa ngi leen di sant bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp Idi na sa jàmm yàgg loo dund doyul.